deal on PACD program, mm -hmm. the Gambia government has signed an arrangement with the United Nations Development Program, UNDP, on the implementation of the program for Accelerate Community Development, PACD, part of, part of larger program to bridge the gap between rural and urban areas on basic social infrastructure. Okay. Wow, Wow. li mm-hmm. ñu né Gambia ak UNDP dañ signed 5.71 million US dollars pour ñu bridge the gap between op ni comme ñu waxee ci kaw bi hmm. ak fi pour demalante bay ñëw bi ak business bi gëna yomba daal waaw xaalis bi daal euh, waaw xaalis bu bu takku la ci déggin euh, té tamit mën nañ ci am euh, ci UNDP <coughs> ñom yag nañu taxaw jàppale yi nga xamante ñoo nekk ci ci dex mi comme niñ ko waxee waaye nag léegi léegi euh, impact bi dafay xala des ci xaalis bi niñ ko niñ ko dee euh, niñ koy ñu ngi koy jëfandoo ñu niñ koy usee su ko defee loolu euh, ñu ñu bàyyi si xel bu baax a baax waaye nag geste bu rafet la ci ci ci ci ci niñ ko gisee. am na solo comme nu ko Mayram waxee léegi because xaalis boobu yëpp war a dem jokkalante bi ak dem ak ñëw bi si diggante. si kaw ki ak si taax ñëw mu yomb. so loolu am na solo loolu na bokk na si yoon ak ñi nga xam ne ni ndox moo dox si diggante bi ñu daal di defar brique yooyu suñ ko jëfandikoo noonu dem ñëw bi dina yomb parce que mun nga jógee fii Komba sax you know dem fu la nee. si mm-hmm. biir réew mi balaa jant di sox fekk àgg nga fi nga dëkk waaw. Mm-hmm.